Aliou Sall kañ la gëj ci terrain bi kañ la gëj a taxaw wax ak population Guédiawaye lu am la Diop la ñuy woo lu lépp loo xam ne taxaw na rek la Diop lañ ci gis moom lañ ci yaakaar moom lañuy ñuy woo parce que moo ko doxee moo ko waxee moo ko taxawe président nag buy respecté di joxe cër bu ñëwee ñii de njabootu Lat Diop la président war na leen téye fukk loxo mm-hmm. ndax la jóob dafa nañu dara ñoruma lu dul président am deuxième mandat ñun war ñu dem ba pale ñëw taxaw ñu mel ne ay Mamadou Yaya Ba nga xam ne ñoom ba ñu âgé du tey ñu ñëw taxaw di am lenn loo xam ne ñu ngi koy taxaw di ko revendiquer foofu Aliou Sall li mu bëgg ñun mënuñu ko na leer ci bopp képp ku dëkk ci géejawaay ndax président moo taxawoon ne nit du am njëg moo taxawoon wax ko moo taxawoon tamit wax ni soxlawuma diw mooy diw dem nañ jëlalil ma borom mbooloo yi Lat Diop nag ci ndigalu président. gisee ñu ñëw fii daje fii ñun waa COJER bu Géejawaay ak suñuy moromu membre COJER yi nga xam ne ñu nekk fi biir Géejawaay bokk biir APR liggéey le président Macky Sall nekk ci wetu président Lat Diop. tey nag boo gisee ñu toog fii démb dañoo demoon audience palais bi nga xamante ni président Macky Sall moo woon COJER départemental bu Géejawaay mais nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii tey def suñu point de presse bi. démb dañoo ñëw ba pare ñu ne ñu duñ dugg parce que seen tournée wu ci liste bi lan moo tax njabootu président Lat Diop ngeen moo tax doo leen dugg biir pare ànd waa Kocheru Guédiawaye léegi nag loolu ñuy def faute bi euh, Yaya Ba mi nga xamante ni moom la ñuy wax mooy moo moo nekk njiit bi njiitu Kocher beneen bi léegi nag ñun def nañ suñu euh, mobilisation ñun waa COJER bu Géejawaay ñi nga xam ne ñun dañuy nekk ci terrain bi guddeeg bëccëg ñu le président Macky Sall nekk président Lat Diop ñu dem ba pare ñu ñuy maltraité foofu ñan ñoo ñuy maltraité mooy que ni ñoom ñi nga xam ne ñu fa fekk dañoo ñëw ñu ñëw poliment changement solu correctement ñëw toog di xaar suñu tur ñu ne ñu yéen ñi seen tur nekku ci léegi nag ba ñu waxee xamale loolu ñu dem ñu jël suñuy responsabilité daal di jël poliment génn dem dox suñu yoon ñibbisi

porte-parole de la Je Guédiawaye. Revenir sur l'objectif de la rencontre. Oui, aujourd'hui, la Cogé de Guédiawaye s'est retrouvée ici au Raven Club pour faire le point sur euh, l'audience accordée par le président de la République à la jeunesse républicaine de Guédiawaye. Euh, nous, nous étions au même titre que tous les autres, mais à notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'on a été bloqué par la, euh, à la porte, faute de quoi on n'était pas sur les listes. Alors qu'au départ, on nous avait dit qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas le droit de venir à l'audience, mais après avoir appelé Thérèse Faye, qui, qui s'est entretenue avec Yaba, on a fini par nous, accorder, nous accorder un quota. Donc, euh, nous, on a pensé que nous devrions être dans la salle comme tout le monde, mais quand nous sommes venus, on n'a pas, été retenus. Donc, euh, c'est ce, qui, justifie aujourd'hui notre courroux et qui fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvés. Parce que nous disons que cette situation est catastrophique, dramatique et inacceptable. Pourquoi je dis cela parce que nous, les jeunes euh, qui sont au niveau de Guédiouaï, avec le président Ladiop, notre seul péché, c'est que nous sommes euh, derrière le président Ladiop. Et ça, on le revendique fièrement. Mhm. C'est notre leader. Pourquoi Parce que les valeurs que nous cherchons chez un leader, c'est en lui que nous, nous retrouvons. Je pense qu'on doit, on doit pouvoir nous concéder cela. Et de l'autre côté aussi, il y a un responsable qui est là, je vous nomme le petit frère du président de la République, M. Aliou Sall, qui ne gère pas euh, le département comme il devrait. Pourquoi je dis cela Parce que euh, s'il est dans le, département, d'abord, il ne convoque jamais de réunion. Il ne considère pas les militants ici comme ses pères. À, à, la limite, on dirait même que les gens sont, sont ses sujets. Ce sont ses sujets. Il n'y a jamais d'assemblée générale.